islam ñu bokk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet wi mu tan def ko mu gën ci xeet yi ndax dañuy digle lu baax di tere aw safaan ñu koy sant mom borom bi di julli ci yonentam bobu mu non yónni euh jox ko njubam gogu jox ko alquranul karim waye di ñaanal mboolem sahaba yi nga xamne ne ñoo ak mom joxe sen lépp ngir njub googu wey di sax ci àddina di ñaanal it képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu di jéem a roy ñooñe di jéem a teg sa tànk fa ñooñe tegoon seen tànk ba ila qiyaami saa ginnaaw loolu ñoo ngi leen di fàttalil ndénkaaneel sunu borom ci ñu jiitu woon ak ñun ñi ak ñiy ñëw ñëpp te mooy ragal yàlla ragal yàlla moom la sunu borom wax ne moom la ñuy ràññeekoo fa moom mom la waxit ne bu ñuy delu fa mom nañ ko jël comme yóbbal kon ragal yàlla moy objectif ci lépp lu yàlla digle ci julli ci wor ci xaj mak ci génn azaka ci mbolem santane yi sunu borom yi la tax mu digal ñuko ngir ñu am xol bu set xol bu ragal borom bi subhanahu wa taala xol bu nangul yàlla mom borom bi yàlla nako borom bi defal wa ma dalika ala allah bi aziz ginaaw lolu mbokk yi sunu borom mi ngi wax ci alquran di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam ak mboolem jullit ne na nga jaamu sa borom te bokk ci woy sant yi na sa borom te bokk ci way sant yi waaye mu wax feneen ne képp ku sant defaloo ko lu dul sa bopp maanaam defaloo ko ku dul sa bopp waaye ku xarab ku xarab maanaam def safaanu sant na leer ne yàlla moom ku wamal la yàlla moom ku tabe la daal fa mu ne la ne rek ku sant sa bopp ku def safaan bi it sa kaw rek lay lay dëpp mu mel nag ak cant mbokk dafa nekk euh, maqaama boo xam ne dafa am wàccuwaay bu kowee kowee ci diinal islaam ndax wax nañ ne mooy xaaju gëm yàlla sant mooy xaaju gëm yàlla xaaj ba ca des mooy muñ xaaj ba ca des mooy muñ suñu xoolee nag dundu doomu aadama ñaar yi rek ko seq léeg-léeg mu am bànneex léeg-léeg mu am jafe-jafe lii rekk la war wër dunduk doomu aadama moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon ci benn xadis ne ajaban li amril mu'min ab jullit dëgg-dëgg moo noobul jullit moo koowee am mbiram dafa yéeme inna amrahu kullahu xayr jullit dëgg léppam yiw la nag yiw lay doon daal di ko firi Muhammad alayhi salaam ne jullit day su amee xéewal day bég sant boromam ci xéewal ji cant googu mu ji nekkaat yiw ci moom su amee lu ko metti muy safaanu xéewal day muñ bu boobaa muñ lay def muñ googu day mujj nekkaat xéewal ci moom léegi nag kon ab jullit ci addina ji ñu nekk amul lu lay dal lu génn ñaar yi yaa ngi ci diggante lu neex tey yaangi ngi ëllëg ci safaan rek ci lu ci lu naqari léegi fekkee nag jël nga hadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax nga def ko muy sa dundin nee na yow yaa kowe yow yaay ki kowe soo amee xewal mu leer la sa borom moo la ko jox nga sant soo amee leneen lu wute xewal mu leer na sa borom moo la ko teg nga muñ wala nablu wannakum bi shay'in minal xawf wal juu'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا وبشر الصابرين لا القرآن وبقل الويمني موينان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون موين يغا خمنا بولين أو مصيبة دالي دون خلال كدول يالا دانيا نيون نيب تي يالا لك جوغي تي يالا لنوي ديرو لول نك موي اب جام موي كو نامونا يالا موي بور موي جيبال nga sa bop borom bi subhanahu wa ta'ala parce que li nga am muy ak dundu sa borom mo la ko jox tayit it ca moom ngay delu moy bo faatoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lo rata julit wara a xel ni mu jebale bopam borom bi subhanahu wa taala moo tax ali sallallahu alayhi wasallam ci hadith bobu le sukkandiku diñu wax ne sunu borom dafa mos wax ak mom ci waxin wo xamne ne daf ne ko so beugé makka yépp ma defal lako zeub boo ko bëggee ma defal la ko yonent bi alayhi salaatu salaam na ko laa yaa rabbi damay préféré di suur léeg-léeg maanaam am lu ma dundee lu ma xewloo waaye léeg-léeg ma xiif ma ñàkk ba yëg xiif loolu laa préféré dund gu mel noonu laa bëgg ndax damaa bëgg man muhammad alayhi salaatu salaam saa yu ma yëgee ab xiif te daraatu ilayk sama xel gën laa daj ma xam na yow rek yaay buur su defee ma fàttaliku la ndax nit ñaari su amee méttit su amee musiba seetlu leen ko da lay gis xelam di daj borom bi subhanahu wa taala nit bu lottoo rek xelam daj ku ko supérieur ku ko mën a dimbale léeg-léeg ci loolu nag lay de ba xam ne ndimbal ci yàlla rek la mën a jógee wa man nasru illa min indillah ndimbal dëgg yàlla rek moo koy joxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yaa jàkkaarloog yàlla na ko yow rek lay jaamu yow rek waaye yow rek lay dimbali ko moo tax jullit yonente bi alayhi salaatu salaam ne def ma may xiif léeg-léeg su defee sama xel di la daj may torox lu jëm ci yow def may it léeg ma am xéwal ba man a xewlu su defee ma mën a sant kon du dañ di nekk ci diggante ñaar yooyu ma waxoon muy bay na shukri wa sabri loolu mooy dunduk jullit dëgg dëgg loolu nag ñi yàlla tànnoon noonu la leen taggee mbooleem yonent ñi ci yàlla gën a ràññi muy ulul azmi min ar-rusul di juróomi yonent tudd naa ko léegi mooy nuux alayhi salaam ibrahim moussa isa ak ki leen clôturé mooy muhammad sunu borom dafa wax yonent bi ne ko fasbir kama sabara ulul mi min ar-rusul ne ko na nga muñ comme ni ñooñee muñee woon kama sabara ulul azmi min ar-rusul kon jullit dafa war a yëg ne lépp lu ko dal ci borom moom la joge su ko defee muy muñ yàlla tagg na ci ay yonentam yonent yalla nuh sunu borom waxna zurriyata man hamalna, ma'nuin innahu kana abdan shakuran koko de sama jamla, la boo xam ne kon la woon man dafna daf ma dan sant man yalla subhanahu wa taala su ko defee wax ci yonent yalla ibrahim mi nga xamne mom dako jappé aw xeetu lem inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal al mushrikin bokulon ci ni bokale borom bi subhanahu wa taala ku wétalon yàlla la waye nak shakiran li anumi ko dan sante xewali borom bi la ko dan sante mom yonent yàlla ibrahim xewali borom bi la subhanahu wa taala ijtabaahu wa hadahu ila siratin mustaqim kon mbok yi ak tiant dafa am solo ci dundu doomu adama ndax wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha ku togon di lim xéwal gi la yàlla joxol gi la yàlla defal ci ñun ñi kenn ci ñun mënu ko lim waaw ndax kenn kon li nga am dund tax nga am ko dund maanaam di noyyi moo tax nga am loola ci dund gi ci nga mën a amee dund googu sa borom moo ko jox tey amul kenn ku mën a garanti ne tàkkusaan dina ko fekk amul sax ku mën a garanti ne mën naa ne jàkka ji te ak faatum du ñëw loolu sunu borom a ko yor moom moo yor sunu ruux loola nag mooy xewal gi gën a rëy gi la sa borom jox waaye mu tànn la ci biir mbindeefam yi boole la ci xeetu Muhammad صلى الله عليه وسلم بيم وخني كنتم خير امه اخرجت للناس كون غيسوما ييت خيوال بو غنا ري خيوال بو دي يالا تاني بولا سي محمد لغي نك يوي ييب بوكو بولي اك ييم لا ديفال سي ادينا اك سير ييم لا ديفال سي ادينا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا دومو ادم انا لان مو دوخ سا ديغات سا بروم لوتاخ اك وور دي دوخ سا ديغنتك سا بروم لوتاخ ما غرك الذي مو مو خامني خلقك مولا كريم xalaxaka fa sawaak mu bindee la nii ci cër yu rafet yi xalaxaka fa sawaak gis nga loolu boo ciy xalaat ci ni la yàlla bindee ci cër yi mu jox la benn boo ci ñàkkoon yëg ne soxla nga ko kon di nga delloo kooku njukkal loola mooy xéewal kon nit ki buy xool ci li ko borom bi jox ci ay xéewal muy ni'matul amatul ni'matul yadayni ni'matul rijlayni yooyu yépp boo ci ñàkkoon xam ne benn manta taxaw palaasam suñ borom moo la bind ci bindin wu rafet woowu kon loolu boo koy xelaat day tax ngay gën a am lien relation sa diggante sa borom day tax ngay am cofeel ci moom di ko sant moom borom bi subhaanahu wa taala moo tax ñi koy def ak a néew ci jàmm ñiy toog wéet di delloo yàlla njukkal wa qalilun min ibadiya shakur la boroom bi waxoon lu néew sama jàmm ñi ñoo may sant ndax sant yàlla doonul rek alhamdulilah déedéet sant yàlla borom xam-xam yi nee nañ da ngay xam li la yàlla defal nga reconnaître ko ne yàlla ma ko defal nga delloo ko ci njukkal ci la la yàlla defal yàlla boo koy delloo njukkal ci njub rek ngay ne maanaam xewal ki la yàlla jox doo ko ci mooy mukk waaye danga ko ciy topp ndax dala koo jox ngir nga jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun ñun ñëpp ak daraja joo man di am ci àddina bàyyil xel rek na jaamu borom bi nga subhanahu wa taala ak koo mën a doon daraja joo mën a am nag bàyyi xel na jaamu borom bi nga te li tax suñ borom bind la mooy nga jaamu ko moom borom bi subhanahu wa taala moo tax dëgg-dëgg sant mooy nga wane xéwal gi la yàlla jox wane ne moo ma jox dund moo ma jox may nooy moo ma wërsëgal ma mën a xëy liggéey wàccat ñibbi am dara mooma yooyu nag mooma mooma yu bëri yooyu da koy itiraaf maanaam danga koy reconnaître dee ci xalaat bu baax mbokk bi dee ci xalaat loolu dana gën a taxal sa digganteeg sa borom dina tax nga gën a yëg ne yow am na koy war a jaamu parce que kii moo ma jox lépp wallahi alazim bu la doomu aadama defaloon teraanga da nga yëg ne defal na la teraanga soo yéexee nag na ko jërëjëf te jërëjëf boobu dana la jural cofeel sa digganteeg moom ndax njekk gim la defal waaw xoolal nag njekk gi la borom bi defal soo toogoon di wet di ko xelaat ci jërëjëf yàlla rek nga dëkk jërëjëf rek ngay dëkk jërëjëf yàlla nag mooy sax ci lu baax rek ne ci lu baax moo tax sant lu jafe la sant lu jafe-jafe la mooy da ngay reconnaître li la yàlla defal soo ko reconnaître nga kañ ko moom borom bi la ko defal sa xol yëg ko nga seede ko ci mbëggeel sa cër yi seede ko ci jëf kon loolu la maanaam xol bi da ko yëg ci cofeel sa diggante ak sa borom sa di ko tudd alhamdulillah jërëjëf yàlla sa cër yi di ko wane ci topp yam xam ne da ngay sa cër yi dañuy mujj sopp yàlla ci di ko topp loolu mooy ak cant noonu la ko borom xam yi jàngale mu mel ni nag euh, shukru moomu li tax ñu war koo def mooy li ñu alquran waxoon ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim li leen yàlla defal kenn ku ko tàmbale woon di lim sa dund dina jeex te doo ko jeexal boo koy lim sa dund dina jeex te doo ko jeexal kon sant ci lañu war a dëkk waaye saa yu ñu xarabee nañu xaar am am aw safaan wa dara daraba laahu masalan yàllaa ngi leen di jox misaal xariyatan ci dëkk bee nga xam ne kaanat nekkoon na aminatan bu am sécurité mutmainatan bu amuk dal maanaam ab dëkk lay joxe misaal rek yatiha rizquha raxadan saa yu ñu xëyee di am lu ñu dundee ku liggéey am wërsëg yu di wàcc di ñëw min kulli makaanin la leen daan ñëwee waaye dëkk ba ña fa dëkkee fa kafarat bi an umillah delloowuñ yàlla mi leen ko jox njukkal xanaa kay ña ngi koy mooy xanaa kay ña def la leen neex sunu borom nee fa azaqaha llahu libaas al jui wal xawfi yàlla wàcce ci ñoom mbugalum tiitaange ak mbugalum xiif muy njëg yu seer liggéey bu jafe xëy doo gañe lu bari te boo bëgg jënd li ngay mu seer wal xawf pourtant ay tiitaange di ñëw seen ko noonu yàlla yi di man ci ñoom lu bari te duñ am fuñ ko layee duñ am fuñ laqat loolu mooy aaya bi libaasal joxe wal xawfi lu ko waral parce que bi ma kaano yasnaoon dañoo delluwutoon yàlla njukkal subhanahu wa taala fay ñoon naar bi xoromam kon yii yëpp ay misaal la yoo xam ne nit koy sant mën naa am xewal waaye koy xarab mën naa am aw safa saa yuy sant nag na nga xaar ak ndollan wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum fekk gi nag may sant ma di leen dolli ay xéwal waaye wala in kafartum su ngeen ma xarabee man yàlla bañ maa sant inna azabi la shadid sama mbugale ngi nii te lu métti la te lu tar la loolu yépp bokk yi day dugg ci cadre jàmm bi dafa war a sant boromam subhanahu wa taala bu ko defee mu jural ko ak xéwal bi ci topp nag mooy li tax jàmm bi war a sant mooy léeg-léeg bu amee ay nattu xam ngeen ne moos minbar bi ma taxaw nat nattu dal na ci kawam minbar bii ma taxaw di wax tey nattu dal na ci kawam jumaa jàkk xam-xam gëstu nattu dal na ci fit ci woote ci yoonu yàlla it nattu dal na ci kawam muy musibatu mawti al imam alim badara ndaw al manabiru tarsi min mbar yaa ngi jooy du dëgg alxaq muy dëgg sax mi ngi jooy ndax ku koy seede xam ne ku dëggu la woon ku amoon sabaat la ci ni mu nekkoon waaye nag nattu la afa xasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun ndax da ngeen a njortu ne da ngeen di ñëw nii rek di julli di génn naan ñun way gëm lañ te duma leen nattu man yàlla wala qad fatanna allazina min qablikum ñi leen jiitu dama leen a natt woon fala yalamanna allahu allazina sadaqu wala la yalamanna alkazibin yàlla dina xam ñiy dëggal ci yéen ak ñi nar sunu borom dina ko xam subhanahu wa taala képp kuy dëggal ak koy nar ci natt wi la ko borom bi di xamee xam ngeen ne moos weer yi ñu nekk mi ngi ñuy fàttalil jëmm joo xam ne ku am ku amoon sabaat la li ñuy tuddee sabaat mooy détermination sax dàkk ci dëgg diggante moom boromam ak lu noon yi tar tar tar ci seen yi taxawaay muy Seexul Xadim mi ngi ñu koy fàttali ab sénégalais la woon ab royuwaay la bu mag a mag boo xam ne al alquran ci boppam moo ñu digal ñuy fàttali ku ñu mel noonu waskur fil kitaab yi ci alquran doon wax wa kullan naqussu alayka min ambai rusul maa nusabbitu fu fuaadak daan na ñëw di nettalil yonent bi alayhi salaatu salaam xissatu yonent ya ko jiitu woon ne ko li tax ma koy def ngir nga gën a gëm ndax ñii fu ñu leen man di jaarale taxul ñu weddi ma man yàlla dañoo dëgëroon seen diggante seen borom weer wi mi ngi fàttalil Cheikhul Khadim moomu ci weer wi la ay nattum tàmbali woon ñu génne ko réewam génne ko jabootam mu ne qusuuri xallat wal ahlu anni tafarraqat sama dëkkuwaay ya gent nañ sama njaboot yépp gisatuma leen te li tax yépp mooy tagg gi may tagg Muhammad lañ ne ma du fi amee mu Cheikhul Khadim ñu génne ko moom mu waxal boppam ne yéen a ngi may génne axrajtumuuni ah yéen ñii yéen a ma génne déglul bu baax naaqiqiina ànd ak ay kaddu yoo xam ne bi ànd na ni mujaahidu damay jihaad damay fexe jihaad jullit day jihaad mbokk jullit dëgg day jihaad dem na ba ci bir mu ne wa li ngeen di wax deug la inni ujahidu damay jihad. waye nak inni li llahi jalla ujahid damay jihad. ngir dëgg sunu borom ji way di taxaw inni ujahidu bil ulumi damay jihad. tek ko ci xam Quran. alquran tuqa ak ragal yalla abdan nek nak jamu borom bi kep khadiman di legel muhammad wal muhaymin ta yalla mi mom ñep saahidun moma sede man man man serigne touba kon ki buñ koy ko wallahi lazi la ilaha illa huwa njub rek ci la ñuy yóbbu boo koy fàttaliku dëgg dëgg fàttaliku laa wax ci ni mu amoon détermination ci boromam ni mu amoon détermination ci taxawal dëgg njub rek ngay def loola tax fàttali ko baax maanaam baatu sant googu mu wax ne nañ ko sant la yàlla moom la bëgg a ci ñun jullit ñi ñépp nga xam ne foo toll sa cër yi di yëg sant yàlla wa qalilun nag min ibadiya shakur moom moomu lii ci weer wii la amee woon muy fukki fan ak juróom-ñett moo waxal boppam xaraj yow sabti famina achar waaye nag objectif bi li xidmatil muxtaari ngir liggéeyal muhammad fi chahri safar moo ko waxoon kon kii buñ koy fàttali jullit bu ne soo jëlee ab dars muy ab leçon ci dundam njub rek ku jub ngay doon ku am jomit ngeen jéggal ma ngay doon ndax jom mooy tolloo ragal ngor mooy tolloo ak ragal yàlla nga delloo sa bo sa borom njukkal xam ne mooy sa borom moo la moom loo am moo la ko jox nga delloo ko ko wallahi alazim ku ko ci deful amuloo ngor loolu la doon initié pour ñu sante borom bi noonu moo tax mi ngi waxal boppam ne alhamdulillahi alkarimi zil minan maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy aji tab ji mooy borom may yi alastigali sant gi ma koy sant nag mooy lim ma def ba awma benn occupation lu dul alfurud wa sunan mooy alkitab wa sunna sama occupation yëpp loolu la Seexul Xadim wala ci loolu rek la newoon maasikan bil kitaab yi maska daririn damay mooy ci téereb sunu borom bi comme ni gumba di lo moyee ci loxo njàccaar la koy womat mat mu leer ko suko su li bàyyee dootul dem nee man noonu laa moyee ci alquran ci ndigal yi ci jàng ko ci jëfe ko moo tax mu ne chakartuhu maa ngi koy sant tey li annahu parce que moom xat saaxa nii moo a génne kon moom gëmoon ne tubaab yee ko génne mooma màng génne ma li watanin ca réew yooyee muy réew yooyu ñuy wax di ko nettali bihi ca réew yooye nafa ma aqani ca la ma dàqale lépp lu ma gàll naroon a gàllankoor pour ma dund tawxid génn bi ma génn moo tax ma mën a dund sama tawxid mën a bind ci muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi li ma bind ci moom xam nga lim bind yëpp daanaka foofu la ko bindee waxaadani ilay bi taxalli min baadi ma hazaba am na beneen bayit bu yéeme bu mu wax mbokk yi mu ne akramanil ahadu bi tawhidi teraanga ji ma yàlla jox mooy def gim def ma di ko wéetal moom moom yàlla inda zawin nufuuri wal juxuudi ca gaayee nga xam ne ak mbañeel lañ doon wane ci man akub weddi yàlla yàlla dimbale na ba la ma fa ne yëpp ci tawhid laa nekkoon kon loolu moom moom la jàppee teraanga julli teraangam dëgg-dëgg mooy mu delloo jukkal yàlla du alal alal lu bari bëri bëri su la dellool sa borom ëllëg musiba lay doon ci yow yàlla nu ci yàlla mussel kon minbar la bo xamne ne bés bu ñëw dafa am lu muy war ci ñun diñu fat wa zakir bi ayamillahi la alquran waxoon ne ko fàttali bési yàlla yi ana bis bu yàlla moomut bési yeb yalla ko mom kon fatali gi limi jëriñ moy ñu xamne ñi rek lañ wara roy imam ali Badara day dugg ci cadre bobu jihaad na fillahi haqq jihadi hatta atahu ataahu yaqin ñun ñëpp xamoon nañ position bi mu amoon ci taxawal dëgg ñun ñëpp xam nañ ne woon ci taxawal dëgg law matalaa yi ragalut kenn ko yàlla bind man dama ne ko roy nga ci sëriñ Touba ndax moom moo waxoon ne wa haysuma taxaf ilahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad foo fi ragalee yàlla miy kenn ku dul yàlla ragal na yàlla miy kenn soo ko ragalee ku dul yàlla ragal na mbokk bi moom nag ragaloon na yàlla moo taxoon li ko daan ñaanal sa yu ñu dajé bo vocal bima ko mujjoy yoni dama ne ko na julit ñi dégg sa message yalla na ko jullit ñi dégg ci tawhid nek ben wétal yalla su ko défé suñ teranga di mëna ñew walillahi al wali rasulihi walil muminin gis nga noblesse dëgg dëgg dëgg ab jullite ko mom ndax ci boromam la ko jëlé ci muhammad la ko jëlé amut lu ko mëna yox yoxin mbokk bi amut lu la yëngal parce que li nga am kenn amuko moy da nga am yalla am muhammad nek ko noble kon nanu bayi xel bu baax ne ak njulit determination la da ngay jox sa bop sa borom te do ci ragal dara do ci ragal ab non xam ngeen ne mos kuy top ak dundam da nga mujj ruus ndax dañ ko togn ndax est-ce que biñ ko togné taxawu ko kuy top ak dundam nañ ko topat bu baax mbokk dañ ko togn ndax yow ab jul en tant que julit sa mbokum julit taxawu nga ko te nak sa julit pour mu wér amul xajj amul sel amul mourid amul qadir amul tijaan amul laayin amul ben association julit julit moy mbokam sewul xaddim mi ngay askono yow mourid bi daf non wala tuaadu bul nono man raaytum faabu ke nga gis aw gémmañam di genn la ilaha illallah bu ko def non moy sa mbok boko ko gisee muy daanu ngir mandi bu ko xarab bu ne ko cam xacc ko parce que benn cër la ci yow fexeel mu baax loola mooy yëf yi loolu daal la lislaam woote te loolu ñoom moom lañ doon wane moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon ma ne moom la sunu mag ñi ñëpp ba imaam mii dem démb ñu denc ko ci kaw suuf yal na ko yàlla yërëm waaye yal na nu yàlla déggloo ñoom seeni message Cheikhul Khadim tey ñun ñëpp a ngi wax Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim waaye nanu bàyyi xel la ko taxoon a jóg yow mi nan murid nga sax déglul bayit bi wax te tuddu murid izil murid murid dëgg la yuridu du bëgg fum fi man di nek abadan ghayra ridar rahmaani lu ngeeramul yalla yàlla murid dëgg fu fi manane ngeeramul yalla moko fa baye ngeeramul yalla nak ay tiaxat du ko maye ay fo di ko maye ak moy yalla du ko maye jaamu yalla la gem yalla la top yalla la kon ñi dal ñom wacc nañ ñom ñom wacc nañ wan nañ ñu yoon wi yalla nu gis yoon wa